la fekk sama sama samay waajur ñu ñëw te kéw sama am jëkk question boobu mënoon ngeen ko bàyyi rek. fekkee wu non non non bul wax loolu yow. ñoom ñaar ñëpp loolu bàyyi rek bàyyi du la fait que aussi tey li may initier yëpp euh, ci sama liggéey projet dajal ba sa xol bi xam na ni la jàmbaar d'accord bon ce n'est pas notre intention di jooy loolu ñu moo sori ci doom moo leen masawu bu baax ça c'est pour que ni fiyax nga ci doom dañu leen waxtaan ñu ñëw dañu leen si tàggu di waxtaan ci complexe bi Seyda ça signifie quoi Seyda Seyda mooy jigéen Euh, Seyda mooy jigéen mais sama tur la S bi mooy Samb ay e, ay A bi mooy mooy Aïda mooy Seyda. d'accord le monde de la showbiz maintenant dañuy gis ñu toog ñu bëri ñu bëri ñu ngi artiste way

man ak Prince Art c'est une famille déjà avant liggéey bi ñu liggéey man ak ñoom samay samay mbokk ay mbokk yu

noonu lay demee mais amuñu benn problème ah, nit bu nekk nag ñaan nga yàlla à un certain de temps bi nga nga nga nga nga xoolaat naka ngay def ak naka ngay ci lan ngay dugg am sa yëfi bopp parce que doomu nekk loolu lay ñaan naka lay def ba am yëfi boppam donc tey mun a sant yàlla di profité ci occasion bi di sama jëkkër parce que tey su ma yëpp di ko def c'est jàppale moo ma dimbale ba ma mën a am sama studio bopp ba tey su ma soxlaatee répétition sama studio bopp laay répété su ma soxlaatee enregistrement sama sama studio laay laay laay. ay est-ce que rumeur yi ñuy dégg léegi cinq star dafay tardé tuuti artiste da nga yëg loolu foofu moo tax nga créé seen bopp nga dem parce que la preuve tu as sorti benn titre boo xam ne ça fait rire sur la toile actuellement bokk na ci ci biir gën a dégg Prince Art est ce que amul woon lu mu poñeel ay ci côté carrière parce que ña fa nekk ñëpp après bi ñu fa jógee dañoo gis dañoo commencé di prier certes nga doon fa gën a am trias donc est ce que Prince Art amul retard bu mag ci sa carrière loolu ce serait vraiment égoïste de ma part parce que tey sénégalais yi suñu ma xam euh, ba bëgg ma je que ne Prince Art ci joué rôle bu mag peut être que bu ma fay dem dama yóbbaale sama dama fa yóbbu sama dara mais je pense que ne am na loo xamante ne nii def nañ ko def nañ ko si man donc bugguma bugguma soli trop ci domaine boobu parce que on est une famille et que wax dafa xaw a gën mën naa wax wax lu ma warul wax bugguma wax lu ma warul wax ñoom sama sama sama famille lañ sama famille lañ tey le plus important mooy que ni Aïda jóge na Prince Art mu ngi dem di liggéey ci boppam yàlla mi ngi koy suturaal première morceau bi mu génn bi mu génne mu ngi dox nit ñi bëgg nañ ko mais man ak Prince Art waaw c'est c'est c'est d'abord une famille c'est d'abord une famille tax loolu may wax loolu mooy Momo Dieng mi nga xam ne euh, mu ngi artiste bi Prince jël nañ ko favoriser nañ ko léegi moom la ñu gën a produire ndax loolu du frustration ci Aïda mi nga xam ne moo nekkoon numéro un ci Prince man man man nag je boo xamante ne man man man du ma frustré woo parce que nit ku gëm la yàlla la li ma am damay jàpp ne lii la ma yàlla may lu ma amul ma xam ne lii yàlla may euh, Momo Dieng c'est un frère boo xamante nii je l'estime beaucoup et lu may wax tout le temps nit may dégg dama leen dama naan leen Sénégal fii tey dafa am ay actes yoo xamante ne dañu mën a way et que Momo Dieng tey mënoo génn ci génération koo xamante ne nii daax na ko ndax xam na ko way du frustration dara yëg-yëg la ak yëg-yëg ne war dëgg yàlla war naa mën a nag dem def sama yëf bopp ma def ko mais yàlla ça n'a rien à voir ak studio léegi mu ngi doxal carrière boppam Aïda mi nga xam ne gisoon nañ ko ci ginnaaw Youssou Ndour ndax Aïda dinañ continuer dina continuer di nekk ci ginnaaw Youssou Ndour di ko aaw man comme je dis tout Super Étoile école suba suba suba suba suma li su woowee suba, ma day nekk plaisir bu mag ma dem nekk ci ginnaaw. tey foog woo la sax bu bu la yu bu la wooyu. ndax di ma dem ci événement bi nga xam ne aussi tamit nañu événement mu ngi waajal événement bu mag boobu. yow si El Hadj Diop bu ko woowee waaw bu la wooyee. ay na dinañ ko gis événement. non man man man sama sama ketai, dona na ma leen di wax benn affaire tey Youssou dafa dafa contribuer bu baax a baax tey ci sama carrière ba pare tey mën na am ne dafa contribuer aussi tey ci lépp lu nga xam ne man dama koy def donc man awma xaar ma xaar ma yàlla ah, ak famille boobu parce que en dor de musique bi def c'est famille ñoom bokk en fait dañu am ay liens de parenté yu yu yu yu mag a moom tey moom su ma soxlaa moom wax na ko Gàmbi mu ne moom ma nekkoon ci moom ba mu sentir ne war naa mën a dox demalal sama bopp mu bàyyi ma ma demal sama bopp donc tey su ma demee ba mën a demal sama bopp donc moom aussi def na ci jéego yi. création studio bi est-ce que waxtaan ci ak moom.